Salut les amis de eSport TV et de Papa Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de vous des likes, merci de vous des abonnés. Merci également des bails ici des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois. de partager et des informations. Bok Sénégal, il fait pour les Montenegro. 14 régions du Sénégal. Rokuruha, des Gogoha, des Ningle, des Diadjofol. Nous nek également à l'hôpital et sécurité de février. Nous sommes pour le faire bof néo gam. Nous sommes Nous sommes aussi erreur judiciaire. Nous sommes pour le faire yobus. Nous sommes générer une fête. Dès le voir les Sénégal. Nous sommes dans la donne. Nous sommes pour le faire aussi Gaël et Yéhénou. On avance ensemble dans la magie de Baba Show et de eSport TV l'actualité en continue gars actualité bi nag ñu fas yéene waxtaanee Mikayil Ngor Faye ak parcours am nan la ko Xavi euh, ba Barça jëndee lu tax Xavi daal di def test des jours mais également wax ci xuloo bi am Guardiola ak ki donc qui euh, dit Kevin De Bruyne ak aussi le geste de ki nga xam donc également Anthony Rudiger pendant ce temps gars ki nga donc Andrei Shevchenko hein, ñenn génération yi euh, yàgg xaw hein, jeune génération bi xamuñu ko ba mu nekkee Milan moom nag xam ngeen jamono ji président fédération football bu Ukraine moom nag neen développer des détecteur de mensonges hein, les les bien, fédération hein, détecteurs de mensonges pour arbitrer arbitrer qui championnat ukrainien et tout

donc euh, situation euh, top 5 Ligue des champions bi gannaaw bi nga xamné joué les quarts de finale yi nan lañ dans les daal ñoo top 5 bi ñi ngi mais également euh, ki nga xamné aussi mon moy donc Luna mi ngi ci Dembélé Sabitzer hein, Joshua Kimmich ak Vitinha ñoom dal ñoo wane seen ci li phase quarts de finale yi flop yi nak mi ngi rouge. Araujo jël carton rouge Haaland comme fantomatique Bukayo Saka également invisible Alvaro Morata également hein, donc mon stérile comme on peut dire Xavi aussi hein, donc colérique Et yëpp jëm ci mooy flop pendant ce temps aussi ki nga xam ne nag mooy donc Carvajal ah gis ngeen dafa génn mais beneen problème mooy Carvajal du jouer euh, match allez bien donc parce que dafa am ay cumul de carton jaune yu bëri Carvajal Dani Carvajal mo tax du ko daal di euh, fekkee loolu du nekk peut-être ah loo dina xaw a équipe bi mais qui nekk du Pep Guardiola encore éliminé hein, avec Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions 2019 bi ko ñom euh, Liverpool de jël euh, Tottenham la éliminé hein, donc ki nga xamné Real Madrid également éliminé leen ren donc Pep Guardiola le champion en titre ren du mën défendre titre donc ki nga xamné également mais Valverde il a été phénoménal Des moments, wa wa wa Real dañu def yu Maroc yi Maroc coupe du boobu def tek défense du contre attaquant tek mur wàcce ko garer sen camion bi mais qui de Valverde nak il a été très très hein très euh, très voilà très performant ci a nga donc repris défensif et tout qui nak di Carlo Ancelotti nee le Real ne meurt jamais loolu la wax Carlo Ancelotti l'entraîneur donc de la casa blanca mon style de jeu même bu fekkee ne gars yi bëri dañuy critiquer euh, beau jeu bi et tout mais mom dal li efficacité bi mi def léegi nak demi-finale gars yi jàpp nañ dadi hein, le 7 ak le 8 mais lay dadi donne inshallah incha match aller bi. Paris Saint-Germain mo njëkk dalal ah, la dalal Liverpool ki mo koy dalal Dortmund Paris Saint-Germain recevoir match retour bi euh, Real day dem fi nga xam moy donc euh, Bayern après recevoir également ki nga xam aussi nak moy donc ki ngeen di gis nii xam ngeen ko entre ah, Dieter Flick mom dal fi mu ne Barça dafa mel dañoo bëgg changer avis ndax euh, ñeneen dal mom miinul championnat Espagne xam lu muy demee moo tax daal ki nga xam ne moy Marquez ni ma leen ko waxoon mo na ñëw justement on va parler du cas de Michael Ngor Michael Mikayil nak ki nga xam moy donc nijaayam di Lamine Ba mo dellu aussi ci problème Mikayil Ngoor Faye lu de Marseille problème ak Jambar lim ko yakal at gi mu tok géewul et tout ak Barça nañ def ba dugal ba dal di koy euh, recruter Xavi yenn condition la teg pour mu dal di meuna valider mu ñëw di côté du FC Barcelone loolu yëpp di ngeen ko am léegi ci Baba Show gay mais aussi également ki nga xamne mo mooy donc Kevin De Bruyne dem génnam indi ay ciow gay nan dafa joté ak ki nga Guardiola Guardiola nag nee na ki nga xam mooy donc Alonde ak ki nga Kevin De Bruyne ñom ñone dañ leen baye ñu génn ah, ak ñom akan di ndax dañoo sonn physiquement mu né dañoo sonnoon mu né lim amé ci Manchester nous sommes, également du côté du Real et joueurs mais du sommes l'un. Ah. donc gars yi nag li information on se donne rendez-vous tout de suite gars sur Baba Show expliquer en détail toute l'histoire de Mikayil Ngor Faye problème l'État, li tax ñu am problème ak jambar chantage bi ko jàmbaar teg waa fédération sénégalaise de football lépp di ngeen ko fa am gars yi subaaxi seen le bonus ñu la gars yi